mbégte contentement li ñi am saa su nekk rek sur Minute de Buzz à travers Xibaar TV HT mbokk internet ci bëgg ñu teewloo ñu daal di dikkaat ak yéen li gën a ci weekend bi mu di coow lu nekkul foofu nga xam rek mom modi Dakar Arena Queen Biz dañ ne dañ ko daal di minimiser né déedéet dañ ko daal di recadrer du samay wax nak jamono gii ndaxte kat à travers Facebook mom Queen Biz moko ko daal di posté di xam rek ne dafa nekkoon en voyage ñu woo ko pour méga meeting bi nga xam rek wa Pastef ñi ko doon def andi ci Ousmane Sonko ba mu ñëwé nak ñu ne ko sa tur nekkul ci liste bi donc mënoo yéeg sur scène mu mel ni rek loolee nag daal na sax xaw a Queen Biz ba noonu rek la daal di wàññeekoon donc jël otoom daal di ñibbi mu def feuille flamme foofee nga xam ne rek moo moom moo di uh, Daba Sey ma nga ca woon Khalifa rappeur ma nga ca woon waaye itam ki nga xamante ni rek moo di Mayakama ma nga fa woon artistes yi bari woon nañu waaye Queen Biz yéegul li tax nag yéegul nag jamono gi andi na polémique bu baree baree bare ci diggante moom ak patriote yi ñenn ñi nag jamono gi xamuñu lu ko waral waaye Queen Biz nag nee na moom nag sëgam dañ ko woo ba pare joxuñu ko mu yéeg nag nee na bëggul bruit moo tax mu daal di retourner rek dugg ci otom dem ñibbi këram ndaxte mbir mi moo ko indi woon ndaxte sax dafa nekkoon en voyage wala sax mu am li nga xam ne ci ay tournée yu mu nekkoon Pape Diouf def feuille ci diwaanu Paris la France naka ni démb crachat sur scène daal di impressionné li nga xamante ne rek moom moo di public boobee nga xam ne rek dañoo daal di ñëw wuyu si ki nga xamante ne moo di Papa Diouf El Hadj Keita kenn desul ñoom ñëpp nag ñu wane seen doole ak seen cofeel jëmale ko rek ci ki nga xamante ne rek moom moo di Pape Diouf ak Clara bu Dóore Gueye Clara moom jéegu Dóore Gueye Gueye bi nag moom boobee ba léegi li coow li bari bari kenn du ko ci dégg Wally Seck nag daal di koy bàkk ci soirée de gala bi nga xamante ne amoon na naka ni démb ak Clara lam yor ak lam yorul lépp la daal di jël abaataay rek ki nga xamante ne moo di doom ak jaaga mu di Wally Ballago Seck waaye itam Wally Ballago Seck daal di koy wayal na ko Dóore yow la bëgg yow yaay chéri Dóore Gueye yow Clara yemul ci loolu moom moom Wally Ballago Seck waaye itam ma ngay ki nga xam ne mooy euh, la ñu la ñu mu mel ne rek na polémique Fatou Guewel ca wet ga nag daal di koy euh, feelu Clara jël koppar gu baree bare daal di koy jox ki nga xamante ne rek moo di faatu Guewel Diouf ci li nga xamante ne rek moom moo di bile soirée de gala nag mu mel ne rek gem bi nag Clara moo ko daal di téye grand retour de Clara moom jéegu dooragéey gi nag dikkati na sur scène nag di def fëye falam ana mu tàmm di ko defee mu mel ne rek jamono jamono gi gém bi bari na lool waaye teewul rek jamono gi moom Clara maa koy daal di yëngal ba mu neex Dakar Arena ki nga xamante ne moo di usman Sonko def ko fëye flamme jamono gi nag nee nañ moom mooy la golden boy du samay wax à travers minute de buzz nee nañ nag game gi li muy bari bari bari Ousmane Sonko mooy gët borom game bi am nag du amul mbokk internet yi yéen laa koy laaj ngeen daal di wax li ni mel ndax Sonko mooy borom game bi kan mooy borom game bi ak lu ci mën ci am rek nee nañ ma ngi koy daal di doxal ba mu neex moom Ousmane Sonko à travers li nga xam ne rek def na ko ay décembre toppandoo daal dina koy génnee tube bi nga xam ne rek mi ngi def it gannaaw ko waree woon génne nag amoon dese rakam daal di génn àdduna nag Aïda Samb daal di koy renvoyé mu génnee ko nag naka ni week-end bi ki nga xamante ni rek moo di Aïda Samb moom madame Diadji bu Abbas Diadji moom Aïda nag def na buzz rawatina rek li nga xamante ne moo di toppandoo toppandoo nag andi na polémique bu baree baree bare nga xamante ne réew mi ñëpp a ngi koy waxtaanee à travers minute de buzz nag jamono gi gone yaa ngi koy challenge képp ku ci am lu la metti rek yaa ngi jël tub bi nga xam ne mooy toppandoo ba tax na jamono ki nee nañ Aïda kay kan lay waxal ndax maison de production ba mu jige wala li mu créé la ak lu mu ci mënti am euh, du samay kàddu Adja Diallo nee na jamono ne du célibataire ndaxte kat ñi fëgg bari nañ bi xam ne rek daal dina koy joué ci li nga xamante ne rek moo di morceau koy def Adja nag nee na lam ci jot mu toll ak lu ci mënti am Adja nee na nekkul ne la gone la wala sax koo xam ne dañ koy mbij di ko mbaajoo ak lu ci anti am nee na nag morceau bi rek dafa tombeek juste mu daal di koy sentir daal di koy yëg laaj la morceau ba def moom mu daal di koy def waaye bu ngeen ma teewloo travers minute de buzz oustaz Ayib Socé oustaz euh, Makhtar Sarr ak ñi nga xamante ne rek moo di waa Modab nag ak oustaz Tayib Socé ñoom mer nañ ba daal di futt ci série bi nga xamante ne mooy xaalisoo bajjo xaalisoo bajjo nag doon série boo xamante ne mi ngi def buzz foofee nga xamante ne rek moom moo di ci Evenprod nee nañ nag xaalisoo bajjo du jaar RTS tay du fa jaar suba ñu ne déet waay ndax dina fa jaaram du fa jaar waa Evenprod nee nañ du ñu baax waaye ak ma ngay daw ca RTS kan moo tooñ lan moo waral li moo di accident bu méttee boobee nga xam ne am na ko gannaaw ba muy jóge si kat moom Père Lamine Ndiaye alhamdulilah lañ koy wax féex na tane na à travers minute de buzz ba ma ngay wax ak taskatu xibaar yi nee nag ma ngay wax nag li nga xamante ne mooy projet bi nee mook projet bi ba ici repose ndaxte kat ay gis na gone yi nga xamante ñoo di Sonko ak Diomaye ni ñuy doxalee ci li nga xamante ne rek moom moo di bile projet ba tax na moom Lamine Ndiaye nee na day gunge gone yi ba mu neex ba tax na sax jamono jii Pierre Lamine Ndiaye ubbil na buntam taskatu xibaar yi ñëpp di waxtaan ak moom ci bile projet toog toog toog noonu la ko tuddee du man de Kumba Gawlo Seck la ñu ne toog toog toog clip bu magnifique clip bu resplendissante clip boo xamante ne moom Kumba la Seck dikkati na sur seen moom la voix d'or Kumba la daal dinay dikkaat ci beneen facette heure bu génnee ñëpp kontaan waaye cette gannaaw ay décembre bu génnee na tube seeti leen Kumba Gawla sek naka jamono gi ma def buzz Fat Bintou Thiam bu Baabel traité de moche nee dafa ñaaw du samay wax à travers minute de buzz xibaar TV HD di ko fësa Fat Bintou Thiam nag ma ngay recadré ñi nga xamante ne ñoo di ay noonam ndaxte kat dañ kaa xas ne ko dangaa ñaaw lu tax ñu ne nag faatu dangaa ñaaw nag faatu nee na du may kenn yotaa da leen daal di tontu ba mu seef da leen di tontu ba mu neex ndaxte kat ne nag Sénégal boobaa yenn yi rek ñu dikk la SODAV moom la ñu pour une troisième fois la SODAV salue l'adoption du décret sur la copie copie privée mu mel ni rek Ngone Ndour moom bu Bouba Ndour ah, bu Youssou Ndour nag ñu bari ci ni nga xamante ne noonu la jiitee SODAV waaye moom moo ko jiitewaat mu mel ni rek jamono gi ñaareel tante dafa daal di xew daba sey bañ ko takkalee wujj booy ba léegi ñi naan daba fay na du samay wax ñi naan daba fayul démb ba mu ñëwee foofee nga xamante ne mooy Dakar Arena daba daal di gën a belli gën a meel mool waaye itam ki nga xamante gis nañ ko moo di Mor Mané ànd ak ñaari jéegam daba aawa yaay ak nekk Mor daal di teg loxo ci ñoom mu mel ni rek jamono jii moor maane nag nee na lenn rek lay ñaan sénégalais ñu bañ a dugg ci sa sëyam bi nga xamante ne takk na ñaareel ndaxte aawa beeg ñaareel bi ñoom ñaar ay xarit lañ nee na Daba Seye naka Daba nee na na ñëpp bàyyi xew mi ne ñëpp bàyyi gem bi ne ñëpp seetaan leen ñu daal di sëy lu neex ndaxte kat am nañ complicité ba noppi ndaxte kat ah, lu jig njaag Mor Maane mooy njaag ak lu ci mën ci am moor nee na coow amul dara xewul waali tëggul coon woyul Sonko moo woote woon foofee nga xam ne mooy ca Dakar Arena waaye nee na moom ak ak yi nga xamante ne ñoo di ay jabaram alhamdulilah carnet rose l'épouse de Krembe Diatta daal dinay am bébé ñu naan ko baby sugar naka la daal di def naka mu nekk shooting boo xamante ne rek ñu ngi koy gis moom Krembe Diatta dajee wuyoo jamono gi au nom de papa gannaaw bi ko jabaram nag amalee li nga xamante ne bébé ba tax ne rek à travers xibaar TV HD ñëpp a ngi souhaité ki nga xamante rek moom moo di Krépin euh, Diatta félicitation di ko ñaanal bébé bi dund te am ndey ak baay xamante ne moo di Cheikh Amar plutôt cambriolage lañ daal di wax ci biir këram ñu ne nag Cheikh Amar li ko dal la ñuy bëgg a xam gannaaw bu jugee coowal police jamono gi coowal càcc la kan moo ko sàcc ci biir këram koppar gu baree bare lañ fi jëlee ak lu ci mënti mel yàppale na ñuy na ngay sàcc waaye jamono gi luy yóbbu ko ki nga xamante ne mooy Queen Biz dem na Dakar Arena waaye yéegul li tax yéegul nag Queen wax na ko ca page Facebook ba ak lu ci mën mënti am ñi ngi xaarandi beneen événement ndax Queen dina yéegam du yéeg à travers minute de buzz joxe ngeen jëf.